di leen wax ne ngeen di continuer di abonné ci vidéo yi di wax ngeen di gën di partager vidéo yi ñuy dugal fii ndax vidéo yëpp ay vidéo yi njariñ kese la mbokk yi tey nag dañ leen fas yéene indil benn secret boo xam ne képp koo xam ne wallu am-am daf la jafe fexeel ba def lii lu yomb la te boo ko defee de lii di xéewal dina la yomb lool incha allahu rabbi vidéo bi nag bëgg naa képp koo xam ne seetaan nga ko nga partagé ko bu baax ba sa yeneen ya mbokk yu bari man see jot man kaa defee nii képp koo xam ne nii ñu koy waxee defee nga ko nii insha allah rabbi di nga am bu baax a baax ay xéwal di nga am bu baax a baax ay xéwal nii ñu koy waxe nu yomb yomb la mi ngi nii nga gis xob poften la garabu poften xob yi moom ngay wut juróom ñaari xob maanaam juróom ñaari xob poften boo ko wutee xob bu ci nekk da nga ci bind fatiha gis nga comme ni nga bind ni fatiha lañ ci bind ba mu jeex nga gis nga benen xob bi fatiha ba mu jeex nga def wut ñetti xobi poftel xob bu ci nekk nga bind ci fatiha ba fatiha bi jeex nga bayyi ba guddi ba nga def li nga wara def lepp ba tëdd rek dess nga wut tangalu kay nga tangal ndox mu xawa bari baxal ci xob yi xob yi nga bindé fatiha yi nga baxal ko baxal ko baxal ko bam bax nga jël ndox moomu bàyyi ba ndox mi xaw a sedd nga sangoo ndox moomu boo ko sangoo jëmmi xob yi da koy teg fenn benn béréb boo xëyee suba nga jël ñetti doomi tàndarma gis nga ko ñetti doomi tàndarma nga ñaan ci li nga bëgg nga saraxe ko boo xëyaatee suba ñaareelu fan ba tey ñetti nga defoon boo xëyaatee suba ñaareelu fan ba nga wut ñeenti xob yi poften déggal nga wut juróom juróomi xob yi ndax ñetti fan lay doon juróomi xob bi xob bu si nekk nga bind ci fatiha ba mu jeex moom it nga tàngalaat ko maanaam baxal xob yi ba mu bax nga bàyyi ba mu sedd nga sangoo ko boo xëyee suba nga jël juróomi doomi tàndarma nga ñaan ci li nga bëgg nga saraxe ko ñetteelu fan ba da ngay wut juróom ñaari xob bu xob bu si nekk nga bind ci fatiha ba mu mat ba mu jeex nga baxal ko ba mu bax nga sangoo ndox mi maanaam boo ko baxalee ba mu baax da ngay bàyyi ba ndox mi xaw a sedd ba sa yaram ñeme ko nga sangoo ndox mi boo noppee nga boo xëyee suba nga jël juróom-ñaari doomi tàndarma juróom-ñaari doomi tàndarma nga ñaar ci li nga bëgg nga sarafa ko boo noppee mboolem xob yooyu yëpp boo ko boolee muy ñetti xob yi juróomi xob yi juróom-ñaari xob yi muy fukki xob ak ñeent xob juróom da ngay wut béréb bu laab nga gas ba mu xóot nga suul ko. mbokk yi lii képp koo xamante ni def nga ko incha allahu rabbi bu fekkoon ne da ngaa nekk nit ku tëju suñ borom dina la defal ak bu baax bu fekkoon ne da ngaa nekk tamit nit koo xam ne wàllu am-am daf la jafe incha allah suñ borom dina la jox xéewal bu baax muy secret bu ama am solo boo xam ne dañ leen kaa baaxee bëgg képp koo xam ne seetaan nga ko nga ko mu gën a yaatu ndax lii ay njariñ kese la te njariñ moom mu gën a yaatu rek ci la di wax mbokk yi nga xamne dañu dañoo bëgg a def loolu istixaar man nañ ñu contacter ci numéro bi muy 77 684 28 bu fekkee ne mbokk yi nga xamne dañu nekk Gambie ak li ko war man nañ ñu contacter ci 238 2381629 238 1629 képp koo xam ne da nga bëgg def lu seet wala li listixaar incha allah rabbi boo ñu contacter ci numéro yi rek. des na la ko defal bu leen fàtte di abonné tey gën a partage vidéo yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf